salaamaaleykum mbokki julliti mbokki taalibe yi mbokki Touba Argentine ñoo ngi leen di nuyu te di leen siar bu ngeen gisee taxawaay bi tey muy bésub Serigne Saliou bi nga xam ne taxawaloon nañ ko fii ci Touba Argentine ah di ko taxawal at mu jot nag tey nag ñu taxaw ak eh, talibe yi Serigne Saliou soppe Serigne Saliou ah yi nga xam ne ñoo nekkoon ca xel kom doon dongay tarbiya lenn ci dongo yi ñu taxaw ak ñoom nii. di fas yéene yëkkati kàddu yi jox ko ki nga xam ne mooy Serigne Bamba Jonn ah bu ñu noppee it jox ki nga xam ne mooy suñu jëwrin Moustapha Sarr a ah, kon mbokk yi du ñu def lu dul rek jël kàddu yi jox ko Serigne Bamba Jonn mu wax yëg-yëgam ak yéeneem ak pas-pasam tey ci bés bi ana lan la yëg akit màggal gi depuis kañ lan ko commencé taxawal. salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk jullit di mbokk taalibe yi ñu ngi leen di jaar di leen màggal di tuub tey jéggalu bu baax. di ziar mbooloom yëpp di baal ñëpp àq di baal ñëpp àq di wax ci njiital ki nga xamante ni mooy suñu jëwriñ sëñ Bamba Ñang euh, ci daayira bi nga xamante ni mooy daayira seen Saliou bi bi nga xamante ni moo taxawaloon cant gi tey kon ñu am cant ak ngërëm ci képp koo xamante ni teew nga fi ak ku fi bëggoon a teew te teewoo fi ñu ngi sant ñëpp euh, cant gi daal moom comme niñ ko daan defee saa su ne ren moo doonoon juróom meelu édition bi nga xamante ni moom lañ ko taxawal mu doonoon mbir moo xamante ni saa su ne dañ ko daan def nag ci weer ci bisu iid bi yàlla defoon nag xëy na bii defuñu ko ci bisu iid bi mu amoon ay tenq tënk ban def ko ci bisu altine bi tey mu am tawfeex goo xamante ni bu kawee bu kawe njort baat sëñ Tuubaa ci teewaayu sëñ ma tele mi nga xamante ni moom moo nekk fi ak sëñ Abdul Ahad mu sëñ Moussa Sall mi nga xamante ni moo ñëwoon teew tey sunu biir kon loolu ak ak tawfeex dëgg la ndax sëtub sëñ Saliou ñëw teew ci cant sëriñ Saliou loolu ak cant dëgg la kon ñu ngi sant bu baax a baax mbooloo mi yëpp di sant bu baax a baax a baax ñi nga xamante ni daayira yi fi teew yëpp sant nañ ñëpp daayira yëpp teew nañ fi sant nañ ñëpp tiijaan yi itam suñ mbokk tiijaan yi teew nañ fi sant nañ leen waa association bi itam teew nañ fi sant nañ ñëpp mbooloo mi yëpp sant nañ leen xëy na dañuy jàllale waal li nga xamante ni moom mooy information ci wàllu jour journée xasida bi nga xamante ni ñu ngi koy waajal comme ni ñu ko defee woon daaw muy tombeeg le 9 juillet incha allahu rabbi ñu war koo defee fii ci capitale bi incha allahu rabbi xam naa ni kon dañ koy fàttali mbooloo mi yëpp ku ci ne rek foo mënti dina rek nga fàtte fàttali ko sa mbooloo nga xam ni journée xasida bi moom comme niñ ko daan taxawalee nan ko taxawalee woon daaw ci ba danañ ko taxawee noonu incha allahu rabbi fii ci capital bi kon xam naa ne dañuy wàcce foofu suñuy kàddu rek jox ki nga xamante ni mooy sëñ Mouhamadou Moustapha Sarr mu jàllale ay kàddu. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi siyaar mbokki jullit di mbokki taalibe yi bu baax a baax a baax. comme ni ko suñu jëwrin waxee rek sëñ Bamba Jonn ñu ngi sant ñëpp rek di gërëm ñëpp di ñaanal sëriñ Cheikh Saliou Mbacké suñu borom gën koo yàggal gën koo wéral ba liggéey bi mu liggéeyal maamam eh, ak liggéey bi muy liggéeyal baayam suñu borom dolli koo kattanal mu ànd koo mboolee mi rakam dolli ko jàmm ak sutura ñu ngi sant ñëpp rek comme ni ko sëñ Bamba waxee waa Touba waa Argentine yëpp rek di sant daayira yëpp xëy na bu ñu limee dañuy duñ duñ duñ daneen juum walla duñ matal waaye nag jëwrin ci kàddu jëwrin sëriñ Serigne ba ñu ngi sant tey gërëm ñëpp bu baax a baax a baax a baax di ñaan li nga xamante ni def nañ ko fi ci ay ñaan ak i euh, alxuraan ak ak lépp loo xamante ni ak yiw la rek suñu boroom tuur ko ci dëkk bi ba delloo fi jàmm ak sutura ak i xéewal ak teraanga ba nga xamante ni lépp loo xamante ni ñu ngi ko fi yaakaar suñu borom dina lu ko defal ci kàttanam ak mën-mënam ñoo ngi sant daal tey gërëm ñëpp rek di gërëm sant bu baax a baax a baax a baax sëñ Cheikh Mati lay Mbacke mi nga xamante ni moo fi jëwriñu Serigne Touba fii ci Touba Argentine. di sant bu baax a baax a baax sëriñ Abdoulahat mu sëriñ Moustapha Saliou mu sëñ Saliou mi nga xamante ni teewoon na ci bés bi jëmmal ko wax dëgg yàlla maanaam cant gi daal moom am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem. baam ñi ngi sant yàlla di ñaan suñu borom moom mi nga xam se ni moo am ak kattan mu may ñu kàttan ak wér ba ñu fekk ko ay yeneeni ati ati at taxawu ko ñun ñëpp kenn bañ a manqué salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kon mbokki jullit yi mbokki Touba Argentine lii lañ leen fi indiloon ci cantu ki Serigne Saliou Mbacké gi nga xam ne ñi ngi ko doon taxawal fii ci Touba Argentine at mu jot. Ah, kon leneen li ci top rek mooy li jëm ci journée xasida yi nga xam ne 9 juillet. Ah, lañ koy taxawal fii ci Touba Argentine muy at mu jot rek dafa am ci bërëb bu ñu koy defee ren nag ñu fas yéene ko defee fii ci capitale bi muy Buenos Aires le 9 juillet bu dee ci espagnol ñu naan ko 9 de julio ah kon bu ko defee rek mbokki jullit yi nekk ci réew mi ñu waajal ko te xam ne bës bi seen bës la kon nag euh, du ñu def lu dul di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu